yàllaan bikum journaliste ba ñuy wax paap Ndiaye bu wal fu TV ak Serigne Saliou Guèye taskatu xibaar njiital yor yor yéen a kaay ñoom ñaar ñëpp fañ leen a bàyyi ñu génn kaso ñibbi seen kër libération moo ñu ko xamal yéen a kaay bi ne fañ leen a def nag li ñuy wax contrôle judiciaire xamuñ sañ-sañ génn réew mi te li taxoon ñu jàpp leen duñ ci wax ba tax mbootaay taskatu xibaar yi ne bëccëg bi ñu naroon a xamal ne benn rajo ak télé du liggéey journée sans presse fañ ko annulé dakkal nañ ko ñu ne déetewaay Walf Fadjri seen télé bañ coupé xam nañ yaakaar du yàgg dara te ba fay tàkkat nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na xalifa Sall ak Karim Wade léegi xam nañ sañ-sañ bokk ci wote yi di ñëw 2024 dialogue national ba waxtaan nañ ba juboo te mooy yene kaay moo ñu ko xamal ah, yow fa ngay xool article L28 fañ caa andi ak coppite buy tax ñoom ñaar ñëpp ñu am sañ-sañu bokk ci ay wote yene kaay bi ne waaye Ousmane Sonko nag ay mbiram noppee gudde ñetteelu mandat njiitiram Macky Sall tamit jubóowuñ fa fa ñoo wax ne dañ koy bàyyee conseil constitutionnel l'observateur moo ñu ko xamal ba pare dëggal xibaar bi ne xalifa ak Karim seen jafe-jafe fi mu toll nii saafara nañ ko mën nañoo bokk ba tey tamit gaa ñu juboo wuñ ci tànn koo xam ne faralut nguur gi faralut ku jégi ngir mu jiite wote yi organiser ko juboo amul ca de source ay kaay na dialogue bële kay Ousmane Sonko moo ci gën a perte yaaw seetal amul kenn koo xam ne kaasal na Ousmane Sonko ngir mu bokk ci wote yi di ñëw ca dialogue ba du ku jégi du nguur gi waxuñ sax lu jëm ci mbir Sonko ba ca sax ñoom Khalifa Sall ñoon jàppee ne ci ku jege lañ bokk société civile bi daal ñoo fa wax ne waruñoo xañ benn sénégalais xàqam ngir mu bokk ci ay wote xanaa koo xam ne yoon moo ko xotere yéene kaay bi ne waxtaanoo nag tey ji ci àllarba ji ci lañ koy jeexal wal fajiri yéene kaay moom fa xëy di laajte ne waa su fekkente ne Ousmane Sonko gars yi fexe ba du bokk ci wote yi di ñëw su boobaa Pastef kan mooy nekk seen mbër plan B ca biir yéene kaay bi xam nañu xalaat ku mel ni Birame Souleye Diop la laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy na njiitiram makki sàll fa wax ne fay def lépp lu mën ba réewum Sénégal kenn du ko yàq wala nga nërmel ko te fa ñuy wëy ngir réew mi nekk état de la le quotidien yéen a kaay ñi ko xamal Bougane Gueye Dany na ko man faay wax ak yow njiitiram Macky Sall gis nga jàmmi réew mi ci sa loxo rek la nekk soo fi jëmee forcé nag naan fa nga jéem yokk sa mandat bi benn minute lañ la may ngir jëflante ko ak yow yéen a kaay bi ne kàddu yi ni mel nag Bougane ma ngi ko yëkkati ci tournée ba muy xamal ca Casamance ca kanam buuru usuy nee na faay sàkku ci kilifa diine yi ñu ñaanal Ousmane Sonko 24 heures kaay na ko ko voilà Ousmane Sonko moomu ngay wax nag fa génnee ab mémorandum duppee ko la lumière maanaam fa caa leeral fitna ji amoon Sénégal nga xam ne fa tàmbali laata ñu koy teg daan yi ci wàlluk yoon ak bi ñu ko ko tegee ba pare ah. yaaw fa ngay xool fanweeru doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan juróom benn téeméer ak juróom fukki doomu aadama ñu teg leen ci loxo ay téeméeri téeméeru doomu aadama am ci ay gaañu-gaañu info yéen kaay na ko sonko fa caa yokk na xam ne ñeenti nit ñoo xam ne fañ leen a faat te ba léegi xamuñ leen fukk ak juróomi doomu aadama balu fetal leen sox ci seen kaw ca yor yor yéen kaay Ousmane Sonko fa wax ne fitna jaay doole bundu xatal gii ñu may def leen rek ma ko teg mooy li ma wuute gis-gis ak njiitëram Macky Sall nekk opposant bu dëggu ak tamit li ma sénégalais yu bëri bëggal seen bopp maanaam li ma xam mbooloo mu bari te kirim la ci nguru njiit réew Sall te moom njiit réew mi ba léegi xamut jafe-jafe yu métti yi ndaw Sénégal di dund ci ñàkkum xëy ak yeneen info yi ne kaay na ko faala ci yokkal Ousmane Sonko fa waxaat ne fañ maa tëj sama kër samay mbokk mënuñ maa seet si samay avocat mënuñ maa gis ba pare ñoom avocat yi fañ leen di bundu xatal ak fitnaal te seen liggéey la ñuy def jiit réew mi nag li xew ci réew mi yëpp li ji njàgg mooy njàgg te dara warul ko lu mooy fa maa bëgg a xañ ma bokk ci wate 2024 yi ko a def te ci justice yoon fa lay jaar ngir xam li mu bëgg leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne tabaski gi fa nar a métti ci sénégalais yi de ah. yaaw seetal soble fi mu toll nii commerçant yu bëri fañ koo denc ngir bëgg ñu ne manqué na su ko defee ñu seeral ko ñu ne dee tawaay xar fi mu toll nii xamut jëwriñ ji di Abdou Karim Fofana fa ñaawlu doxal ñu yenn commerçant yi ci soble ñu denc ma ngi ko waxee ci Sud Quotidien jëwriñ ji di Samba Ndiobène Ka ne xar moom fa manqué Dakar de lii yéen kaay ne waaye gouvernement bi ma ngay sàkk ay pexe de yaaw fa ngay xool fukki junney tonn ci soble état bi fa wa ne nañ ubbi frontières yi pompiteer ak lépp fañ caa jël ay dogal tàggat yaram mbara ci gaynde njaay sénégal daal ci jonganteb xaritoo ni ki démb fa jàpp brésil fëkkoo mbuqi fëkkoo mbuqi fëkkoo mbuqi fëkkoo mbuqi ba muy bëgga dee tàll ñaret ñeenti bal ci ñaar tik tak carax-carax bii ya mel ni taw Habib Diallo fa mën a dugal fa xët bal bi ak tànk càmmooy ba góol bi gisul ko sax ñu sëkkatal leen bañ mujj dugal seen bopp waaye ñetteelu biiwu Sénégal bi nga xam ne Sadio Mané moo ko dugal moom la àdduna bi di waxtaane fa enveloppe bal ba làq ko li karne ca ruq ba bii bu rëy ñu ne détuwaay ñu amaat penalty Sadio ñëw fa yóbbu góol ba de contre pied brésilien yi fañ doon xeex ak a jooyee ko xuloo yéene ñoom ñëpp ñu nettali ndam lu rëy li gaynde yi na lii kay histoire fa ñetteelu réewu Afrique bu